sama benn yaay bu nekk fële daf ma woon sax ne ma bu ma wax ci affaire maam góor parce que doon naw leen hmm. benn yaay bu nekk euh, fële ñu koy waxatee euh, États-Unis bi mu seetaanee vidéo bi nga xam ne moom moom def na ko yaakaar naa fii la ko gédde ma ban Sénégal la ko defee at euh, beneen waaw man seetaan naa ko mu ni man duma rakk Cheikh Amar xam nga kilifa dangay xam ni kilifa ñàkk fayda mënul weesu ngay détaillé ci diw rakku diw la wala du diw du rakkam wala diw sëfoor la wala du sëfoor barke Serigne Saliou li ma xam ci moom bu ma ko waxoon wallahi bu leen bu ngeen yéen bi sax da koy rusa tiimale micro man bu ma li ma xam ci moom bu ma ko waxoon yéen presse bi da ngeen koy tiimale da ngeen koy rusa tiimale micro te maam góor na xam ne kilifa la maam góor dèjà benn way la fi Moussa way mo ñëpp xam ko mu jësaaka yow sang be à part loolu gisaatuma dara lu mu def lu man di xew te ngeen bàyyi xel mooy hypocrite la waaw lu mën di xew te ngeen xel mooy hypocrite la du nitu dara moom. mus ngeen a gis maam Góor muy def interview di tudd sëriñam ah xam nga maam Cheikh Ibrahima Fall moom yomb na tey ku mu neex nga ni maam si barke maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima maam Góor bi mu jébbalu ci Cheikh Amar Touba la woon ñu dem kër sëñ Cheikh Saliou ndax bi bi Cheikh Amar di commencé yor xel comme 2009 la la ko sëñ Cheikh jox Cheikh Amar. 2010 ñu ànd ak seex Béthio ci biir àll bi di dugg ci tool yi di liggéey bi ñuy liggéey yàlla dogal ba Cheikh Béthio nekk à côté moom it Cheikh Amar nekk à côté ku nekk di def sa waar en 2000 2010 daa la wax de. 2010 2011 euh, ñu war ñëwaat xelkom ñu jaar kër sëñ Cheikh pour jëli ndigal li comme ni daan def noonu déclaration bi avant xelkom bi Cheikh Cheikh ne ko maam góor ne ko Cheikh man de jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira yaay sama jëwrin loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi jébbalu ci Cheikh Amar ngir jébbalu ay yaakaar de ngir alalu àdduna la jébbaloo woon. dégg naa sax ci interview bi mu ni. dafa tuddee yaayu Cheikh Amar doom doom boobu ni mu demee maam góor dafa xam nga soxnaam député la woon. député bi mu nekkoon temps Ablaye Wade la Ablaye Wade jëndoon ay fortuneur xam nga fortuneur jox ko député yi ku nekk yor otoom maam góor jëloon fortuneur soxnaam indi ko xel ko mu paan mu topp ci tànku Cheikh Amar di ko jaamu pour mu jox ko oto parce que oto bi daa yàqu 40 millions la ko mayoon mu jënd ci benn Mercedes. defaraat Fortuneur ba delloo ko borom yàlla di dox ba soxnaam ah, nekk nekk ci ci ah, nekk en état mu ni Cheikh Amar sama soxna si daa daa nekk ci wàllum euh, jigéen ñi yooyu waaye doom ji dama la ko bëgg tuddee ji dama la ko bëgg tuddee ji doom ji juddu nekk jigéen bi mu nekkee jigéen mu ni Cheikh mari laa koy tuddee jabaru Cheikh Amar mari na ko boo ma koy tuddee nangam taan waaw kooku daal sa kooku nekkul ci yooyu. mu ne ah dama ti Cheikh Amar ko ah Marie laa ko bëggoon a tuddee mais Marie dafa bañ tuddee yooyu ba mu tuddee ko génn xaalis bu takku jox na yaayam lu ma waral tur wi. te sax est-ce que ñun imam ba la mu tudd la mu tudd daal wóoruñu ndax xamuñu imam ba lu mu tudd ci nopp ba en tout cas na yaayam la ko tuddee comprendre nga. man ak Cheikh Amar dañoo bokk benn kër bu ñu nekk jur juddoo muy Jurbel papa Amar sama papa bokk ndeyet baay